sa njili comme maam Modou Lo Ama Baldé tension bi bari na <laughs> lool lool ñii sax ñu ngi naan est-ce que làmb ji du yàqoo ci biir géew ba waaye daal gëm nañ ni daal ak lu mën a am combat mystique la. waaw alaaj buur hmm. bëri na ñu naan sax sëriñ suma gis ñu naan làmb ji du am. Hmm. ñooñu nag gisuñu dara. Hmm. waaw ñu naan làmb ji du am ñooñu gisuñu dara. làmb ji si gàttal mën naa laa tënkal li nga xam si ni moom moo ciy xew. li nga xam moo ci xew mooy làmb ji am na ci mbër moo xam ne si nii. mbooloo mm. da ko daan dar lool. Mm. te dégg na daal mm. moo jekk woon ci jamono. waaw Modou Lo. man Modou xarañ Lo. dafa jekk woon lool ci jamono. waaye jamono bi am na sarax boo xam ne si nii bu ko Ama defee. ci taatu tefes nag la koy defee te la muy def lu luy ren la te dara ji du ko topp. bu ko defee incha allahu taala lan ko jekk woon dana deñ jërëjëf mbokki internet yi bu la ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci benn jotaayu xam-xam ki ma fi dajeel góor yàlla di boroom xam-xam di alim ci bu wér yow mi may seetaan nekk diaspora bi wala ci biir réew mi te jëflante ak moom tey dellusiwaat nga tey ba ci moom mbaa nga jël téléphone woo ko ne ko sëñ bi dëgg-dëgg sant naa neex a jot lool neex a jëflanteel lool ci jikko ak alaaka bu rafet bi nga xam ni séq na kook ñi nga xamante ne que ñooy sàkku si ñaan ci moom di sëriñ jëri borom leer góor yàlla tey nag ma seet si ko ñu fas yéene waxtaanee actualité bi ci gën a tàng te gën cee saf gën cee weex li ci diggante moo Modou Xarañ loo ak ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé combat bu très très très mystique mm-hmm. waaye danañu waxtaanee tey ñaan yàlla ba yow mi may seetaan question yi ma koy laaj ak réponse yi ma jox boo ci gisee sa bopp dawal gaaw yónnee ko vocal mbaa nga woo ko téléphone mu indi la solution eh, ci say problème sa njëli buur a ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga nuyu ak lay seetaan sur bi pro ak Bour Gueweul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yahfahu qawli sadid lisaani nawir janaani shafil amaani wasid bara'i kon wakun amaami kon xalfi wakun wasati wa fi yamini si malik ya raja yakku ni barke cheikhul xadim mbokk yi ñu ngi leen di ziare bu baax di ziare buur ak ñi mu àndal ñëw ci kër gi tey bëgg a seq ñun ay waxtaan yoo xam ne dañuy ñaan yàlla njëriñ juddoo ci incha allah njëriñ mbooleem ku ñuy seddaan ci àdduna biir réew ak biti réew bismillah sëñ Jili combat bi ñu dëgg ma la cinq ay fan a ci des mhm. waaye tension bi teel na bari lool surtout xeex bu tar mhm. ci wàllu waa ala kulli xaalin combat bi ku amu ci amoo xam bu bari ndax làmb la joo xam si ni eh, ñaari nawle lañ ba pare eh, làmb boole na leen ba ki nga xam si tey jii mooy Ama Baldé li ko làmb ji jaral bari na. waaye Modou Lo nga xam ne tamit dafa yàlla dafa dogal mu doog ci maanaam donkaasi gi mu yor ruwaa bi. moom it ala kulli xaalin pour nga jëlee ko ci moom lam koy jaral dafa bari. kon làmb ji ku ne amul mystique rek xamoo li xew. nga gis ne nag tey jii ci jamono Modou Lo jekk woon na Ama Baldé lool. waaye Ama su fekkee ne yàlla dogal na. mu am seexu mu rab bi bu ko mën a jox tegtal bii ma lay wax. wala mu am seexu asraar bu yàlla may kurus. moo xam moo xam. tey jii bu ñëwee ci moom mu leeral ko li nga xam ne si nii tey jii moom la ma yàlla wan de wallaahi wala ngasim liñ ko jekku mboolem ci gàllaaj dana toj incha allahu taala. jàpp nga ne Ama mën a ci am ndam. waaw xam nga lu tax mooy dafa nekk koo xam ne Euh, ñi ko bëgg di ay kilifa di ko ñaanal dañoo bari. Hmm. donte Modou Lo tamit. Hmm. waaye euh, ama kilifa nga ko yoral kurus. koo xam ne si nii ku nu mën a ku nu mën a tudd turam la àdduna bépp xam ko waaye du ko jar ndax écran bi. Hmm. te Modou li ko yàlla dénkoon maanaam te mu jekku ci Ama Balde lii may wax bis bu ko Ama Balde defee. billahi wa rabbul kahbatil musharraf luñ ko mën a def dana toj. loolu mooy lan. am na ci loo xam ne si nii boroom ñeenti tànk lu mag la borom ñeenti tànk buñ ko waxee li dala gileem la. ba ci su munta am gileem sax bu ko defee bu amee nag baax na mhm. soxlawul mu ñu koy def loo soxlawul mu ñu bu demee ba ci taatu tefes insha allahu taala bu ko fa rayee séddale ndawal gi saraxe ko foofu noonu moo xam ñetti saam wala juróom-ñaari saam lu ko ci def baax na mhm. waaye ci juróom-ñaari lay yem deret bu mu topp bu mu topp lu bokk ak moom lu ànd ak moom mhm. bu ko defee ko def ci liggéey dana toj laa ilaha illallah waaye sëñ bi li ngay wax nii dafa mel ni ku mënul seet ku amul xam-xamu ilmul nujum ku xamul biddéew ku mënul seet seet dëgg-dëgg mënoo ko xam waaw wa atul bu buyuuta min abwaabihaa la alxuraan wax buntu maanaam lépp loo xam ne si ni yaa ngi koy def rek da ngay ko jaar ca bunt ba mm-hmm. te asraar bi ñuy def nday jam ak bunt ba mooy seet mm-hmm. ki nga xam ne si dafa feebar dem ci médecin mu koy seetal mu koy faj daf koy seetal yaramam mm-hmm. mooy da ngay dagg maanaam ticket de consultation la ñuy wax boo ñëwee ñu xool diagnostic la xam la la moo la dal doog lay mën a faj bind la ordonnance yi lay faj dëgg la kon naka ngay mën a ñaanal nit te xamoo tabixaam xamoo rawaxaani yaam xamoo xawaa yu la xamoo turaabu yu la xamoo maa yu la xamoo rawxaanam ci lu muy dox mm. xamoo biddiwam ci ban ban ban mu weer lay dox mm. ndax biddiw su fekkee ne nit ki dafa nekk samsu mm. nga bëgg koo euh, ñaanal ci biddiw ci jamonoy lëndëm mm-hmm. loo ko ñaanal mën a sotti mm-hmm. ndax am na ñoo xam si seen biddiw ci leer lay dox mm-hmm. jamono bi nga leen di ñaanal dafa am ci weer woo xam ne si nii euh, ca nga leen war a ñaanal loolu nag képp ku jàngul xel mun nu joom xam-xamu biddiw mënoo koo xam léegi nag ala kulli xaal jafe-jafe yi am léegi yi posé ci sunu mbokk sëriñ si ñi ma ko sañ a wax ah ndax man du may faral di tooñ kenn ci internet maa man keneen mënut loolu hmm. borom xam-xam du ko def hmm. ndax yàlla faalu lima yurid maye na lu nekk hmm. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne al adabu afdalu min al ilmi maanaam xam-xam maanaam ay teggin moo ko ëpp te kon du ay teggin may jël sama ay kaddu di ko teg ci benn deru kilifa. Mm-hmm. waaye li yàq société bi rek mooy ñi mënul di def. waaw ah, waaw xamoo bidéo nit ki. waaw a koo seetal war na. saa soo xam ne alaaj buur maa nga xamal la benn affaire de xam nga luy tëj nit lu bokk na ci liy tëj nit. nga war a ñaanal ku mel ni buur ñëw ci yow am ci yow yaakaar dékk la ajoom nga la damaa bëgg nga dimbali ma ci nga daggal ko xawaatim boo xam ne danga nga damm xaatim bi dugal ci turam waaw nee nañu benn benn xaatim bu damm de junni mënu junni xaatim wallaahi wala si mënu ko mënu koo mm-hmm. saafara dëgg la léegi nag loolu mooy indi problème bi waaye bu dee seet man alaa kulli xaalin fu waay man di nekk ci àdduna soxlawul nga may sax bindal sa turu ndey ak sa tur fotol sa loxo ndi jor buur hmm. gis nga ñetti rëdd yi nii waaw te benn doomu aadama ndural la ko sa morom de alaa kulli xaalin an naa si moxtalifoona yàlla dafa bind yemalewul ñim bind hmm. su fekkee nit ki sax da nga bokk ak moom ndey ak baay ngeen doon ay seex te du ngeen bokk li du ngeen ko bokk alaa kulli xaalin loxo bii bu ci nekk rek ñetti rëdd yi am na lu muy isaara ci doomu bi hmm. su fekkee ne rëdd bii ci digg bi nit ki bu lay seetloo mu la bëgg xam daar daar mi moom la lay isaara. maanaam nit ki yitte yi mu tollool. moom rëdd bi loola lay isaara moom la lay leeral. su dee bii ci kanam. bi ci sa ginnaaw nii la nga weesu sa ginnaaw lépp la lay leeral. bu dee bi ci sa ci sa kanam lépp loo ci bëgg a xam dana la sa kanam yaa ngi ci tukki sàngam wala yaa ngi sàngam yaa ngi proche sàngam. te doomu aadama bu ci nekk ñett sa loxo di jor envoyé ko ma leeral la ba nga jàpp ne man dañ maa wax ci sa mbir dara. allahu akbar te ah. wax dëgg yàlla ah. lu wér la xam-xam bu wér la ah. mooy ñetti rëdd yi li doomu aadama yi doon ay milliards nit ci ko suuf mm-hmm. kenn nduróolewu ko ci ak sa mm-hmm. morom mm-hmm. te ku ci nekk ala kulli xaal ñett nga waaye sa njëri nopp gi ngay def ci slip nag laa bëgg ñu waxtaane ko <laughs> man noobu slip man dégg naa noobug fas dégg naa noobug nen dégg naa noobu noobu nangam bu ñu suul ci géej bu ñu nangam mais noob gu ñuy defee ci slip man moo ma jaaxal waaw alaaji buur slip dama ciy liggéey noob gu doy waar silib bu jigéen lay doon. silib su fekkee ne ku góor mooy nopp ku jigéen. ci mm. caleçon lañ koy liggéey mu sol ko ñetti fan. nekkul lu ñuy fanaanoo. Mm-hmm. su fekkee ne ku jigéen moom mooy bëgg ku góor moo xam sax far la wala ba. moo mm. xam da ngeen di ànd. ba seen procédure mariage am mu wan la ginnaaw bari na. Mm-hmm. liñ ciy def ñun bu bu fekkee ne maanaam nit ki dafa toll fenn mënul ñëw. bu dee ku ñëw ci kër gi nag danaa la jëndal caleçon bi wala nga jënd silib bi àndaale ko boo ñëwee ci liñ ciy ci lañ koy def nga yóbbaale ko dafay ànd ak fasu poqe gii. ah ok moom ngay takk sa ndigg waaw. Hmm. liñ ciy def bu nu ko defee bu buñ la ko joxee ñetti fan bu la neexee su fekkee ne ku toog maanaam weer wala ay at woowu la boo solee silib ba pare takk fas gi toogal di ko déglu moom mooy jël téléphone moo lay wool boppam balaa mat trois jours. ala kulaa nit ki mu billaahi la si laa noob googu noonu amul kum dul jàpp ci àdduna yow taxawal taxawaayu naasu say tànk na jëm suuf sa bopp jëm ci ko moo xam ku xees nga moo xam ku ñuul bu ma la ko defalee incha allahu taala su fekkee ne yàlla dogal na moo xam sa jabar la ju la woon ginnaaw dem moo xam koo xam da nga doon bëggante ak moom ba ngeen nekk ci wàllu mariage mu jékki-jékki wan la ginnaaw su ma la ko defalee dama naan la demal bul ko woo yow toogal moo lay woo. alhamdulilah <laughs> kon gaa ñi noog gaa ngi noonu. noobub slip la wala caleçon. sëriñ Jiri boroom leer góor yàlla. dañuy doxal de dañuy soog a tàmbale. sëñ bi ndomb ak juróom-ñaari gaw yi ci lu muy dox. waa ndomb googu sax alaaj buur man ne woon na ñaare du ma ci leeralate. Mm-hmm. ndax yàlla dogal na sunu mbokk yi nga xam si ni ñoo nekk ci biir réew ak biti réew ñu leen koy jox bëri na bëri na oto bii ci suuf ma jënd mhm. oto bu cher la ni da ko jënd jox ma ko te ba muy ñëw yàlla dafa dogal mu yoroon entreprise boo xam ne si ni dafa jëm en faillite mhm. bi mu ñëwee ma seddal ko mbiram tamit xam ni gàllankoor yi moom neexut a liggéey waaye li ko gàllankoor lépp ay coow la loo xam ne mbokki jege ñaale dañ koy def ak mhm. mbokki yu muy liggéeyandool ma ne ko lenn dong moo la mën a dimbale nga jël sama ndomba soo ko jëlee tamit bu la neexee liñ ciy diggaale yow mën naa laa wax ne la joxeel xaaj ba nga dem weer ba weer wi dellu si su fekkee ne maanaam sa entreprise waatu maanaam nu raw na nga ko ko yore woon bu la neexee ñëwal delloo ma ndomba ma delloo la ma la delloo la ma joxoon bi muy ñëw dana ma loo bëgg hmm. kon su fekkee ne maanaam nit ki li muy def maanaam moom na xool bopp maanaam li ma naan mën naa ko hmm. na nit ñi ma naan mën naa ko nañu xool man ni ma mel ba pare waaw d'abord waaw dëgg la xam nga mën naa nangam nañ xol yooyu mi naan mën naa ko ni nga mel ni la yàlla def ba pare. waaw waaw ndax jeexitali feeñ na ci yow. feeñ na ci yow am déet. Hmm. ñun Serigne Saliou ñu jar yàngal. ñu jàngee ci daara maanaam doon nitu daara suñu lépp daara la. Hmm. lépp loo xam si ni ñu ngi koy jëf ci wàllum zulmaan yi sax suñu mbokk ko koo xam ne si ni tey jii nii maanaam ñun sama waajur wu jigéen séeréer la. Hmm. boo demee laa gii ñu dëkk ci Diofior arrondissement. xale bu gën ndaw ci wàll sunguf ak reen bu la waxee dara bay boo nga xale bu toll nii laa la bu fer ba mu am juróom-ñaari at bu la nee sungufu ràng nangam ak nangam boole ko jëlal lim la wax te xam ne loolooy am. ko ci jëli ci ñaari wet yëpp lay dóor mu daanu. waa xam nga tey jii ñun doom dañuy doomi séeréer. Hmm. ginnaaw bi ñu jàngee alquran ba jàng xam-xamul asrar. Hmm. jàng mbooleem fànni xam-xam yi ba pare am na ci loo xam ne si nii. maa farat naa fi kitaab min shayin alxuraan bàyyiwul dara. Hmm. waaye nit ki su fekkee da ngaa bëgg liggéeyal ko jooni jooni faaw nga dem ci sa baaxu maam. waa dëgg la de ah. surtout rawatina lu ci mel ni ah. euh, wàllu cet ak ah. wàllu rab ci ndomb googu nga ma laaj nag hmm, balaa may ñëw juróom-ñaari sangat la lay àndal cig leket juróom-ñaari gaw la te juróom-ñaari cet sangat ci leket bu ne sangoo nga juróom-ñaari fan yi ci ci leket gi ci guddi fu kawee nga koy sangoo hmm. lin lay jox boo paree ñu jox la ndomba gi nga tëj ko juróom-ñaari gaw moo xam yow sa da ngaa nekkoon ci barab di fa liggéey ñu dàq la moo xam sa entreprise bu nekk en faillite moo xam da ngay liggéey sa xaalis mënoo koo dajale mu téye sa loxo wala nga def ci dara boo takkee ndomb gi bu la neexee leen dañ lay appal ñun. appal la ay bés. appal lañ lay def appal waaw. ne la bés sàngam boo. jëlal ndomb gi nga dem yow xool loolu gars yi duñ ko def de. waaw loolu duñ ko def waaw demal nga dem xool loolu gars yi duñ ko def. sëñ wàllu cat ak wàllu rab ñaare dañ leen di jaawale wala dañoo bokk ndey te bokk nu bàyyi ñaare am na lu cat di def ñu jiñ ko rab ñaare am na lu rab di def ñu jiiñ ko cat. Hmm. wala ñoo bokk ñoom ñaar melo. waaw da ngay gis maanaam euh, ba tey jii nii cat. Hmm. ni muy def nit bokkut ak rab ni muy def nit man nag buur man faju may rab faju may jinne yoru may jinne faju may rab eh, ndax eh, yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a teral wa hamalnaa fil barri wal bahri wa rasaqnaa min at-tayyibaatin wa fadalnaa ala kasiran mimman xalaqnaahu tafdilan mm-hmm. yàlla doomu aadama la teral doomu aadama bu jaamoo yàlla ragal yàlla yàlla dana ko xamal ndax xam-xam leer la dënn bu ragal yàlla yàlla xamal ko ci. dëgg la de xam-xam de ci dënn góor yàlla bu ragal yàlla. lay ragal yàlla lay kon damay wax ne nit ki nag su fekkee ne maanaam da nga bëgg a jël jinne yow def ko pouvoir ak di ko ndamoo kon xamoo yàlla yow. waaw di fa gis de naan. damaa yor jinne naan yor naa jinne. te doomu aadama gën a for jinne foofu. gis naa benn sëriñ bu koy def fan yi yor naa jinne toog ci jinne waaw sama damaa yore jën ay caaxaan la sëñ bi toog leen bu leen ñëw wallaahi nan jaamu ji te bàyyi caaxaan loolu caaxaan kese la mm-hmm. gis nga yàlla boo ko jaamuwut wallahi wal si boo duggee ci bàmmeel da ko loyoog moom mm-hmm. alxuraan nee na wa maa tadri nafsun maa saa taksi boo xaddan mm-hmm. wa maa tadri nafsun bay ardi tamut kenn xamul nu la faatu di fekkee nooy faatoo ak nu lay fekkee koo xamul nu mu lay fekkee ak noo koy defee. doo jaamu ji yàlla. waaw waaj da waaj de sa bopp waaj waaw léegi nag jekk toog ci tele di kàcc ma nga ginne yi toog leen ak yooyu ñëw leen baaxul loolu baaxul. puus leen tooñu ma kenn de wallaahi tooñu ma kenn. waaye dama bëgg rek ñu dellu si waat. da ngay wax bi wàjjillaahi taala. li wàjjillaahi taala ñu dellu si waat. Mm-hmm. indi xam-xam leeral ko mm-hmm. jaamu yàlla yi gis nga ki mm-hmm. toog bitim réew. am na dëkk yoo xam si ni buur kay liggéey di wàcc téléphone am boobu dong la mën a yor. dëgg la site internet dong la mën a yor moom la mën a wédul quoi amul problème bu mu mën a partager ak nit mm-hmm. su la gisee ba yaakaar la li mu bëgg mooy solution ci mbiram la mais boo ko bëggee réeral la jaara la ko ci ñi rek indi nga jafe-jafe boo xam ne yàlla du la ko baal ba ala ay programme ay jinne yu kenn mënut a gis waaw léegi nag kon lu mu mën a doon rek mm-hmm. man jiili mii borom leer mm-hmm. fajuma ay rab yorumay jinne seexu asraar laa bu yàlla may kurus képp ku ma yàlla booleel ñu war a jëflante insha allahu taala sa aajo dana fajoo ci man mii loolu nag teguma ko ci ay baatin yaa ngi dégg waaye damaa xam fi ma jóge xam li ma yor. sànq dañuy wax nga ne ma buur liggéey bi mettiwul. Hmm. ki la yaakaar. Hmm. ñëw ba ci yow ngeen ànd yaakaar yàlla. Hmm. kooku amaana loo ko defal ndax yàlla du tas yaakaar. wallaahi fi dëgg la yàlla buur la boo xam ni. wallaahi du tas yaakaaru jaam bi ko yaakaar. te dafa bëgg jaam buy sonn jëm ci moom jaam buy jëm ci moom. Euh, wàllu kayit. Euh, bu nañu xool quatre vingt dix pour cent. Mhm. des Sénégal de la diaspora. wala Gambie yi nekk diaspora problème boobu la ñu am. muy lu naqaree lijjanti nag. Mhm. ndax léegi da nga gis Modou Modou buloo buur de sama kayit gi lu man ñaar at ngi maa ngi ciy topp. Mhm. ñaanlu naa ci fu waaye aw ma ci résultat. waa xam nga tey jii nii am na ci ñoo xam ne si ni yàlla dogal na. waruñoo tukki. seen mbir du tukki duñ koy tukki. am na ci ñoo xam ne si ni nag. Euh, mbir da leen di jàpp wala gàllankoor wala tooke ju nekk seen yaram lu lijjanti du sotti. Mhm. loolu am na ci jaam yàlla yi. dëgg la léegi nag moo tax mbir moomu noonu mbirum tukki maanaam nit ñi ñi nga naan ñi nga naan ma man lu ne laa ci yor. Mhm. waaye li ma ci yor du leen lu dul am naa ci dalil bu leer moo xam ku bëgg nationalité la moo xam ku bëgg rendez-vous sax nit da koy bëgg mu jafe ko. rendez-vous visa rendez-vous nit da koy bëgg mu jafe ko. Mhm. te su fekkoon ne sama téléphone bii nii mën naa la uh, wan ay vidéo ñoo mhm. xam ne dañuy dem ba ambassade ñu jox leen seen visa ñu vidéo seen bopp ne seen jili maa ngi lay sant di la gërëm yàlla sama visa ci yàlla yow la ko jaar ci sama mhm. téléphone mhm. mais du ay teggin ma koy sax wane mais da gis ne koo xam ne si nii tey jii nii mbiram du tukki lu mu mën a doon nag dama naan la seetal naan la seetal sa mbir ba pare seet gi moom doo ko bàyyi gannaaw su ma ko seetee daal ba xam ne yow mii yàlla dogal na war ngaa tukki yaa ngi koy lijjanti waaye jafe-jafe ne ci yow ba mu tëw sotti mhm. bu soob yàlla buñ ci jëflante incha allah da ci sant yàlla su fekkee ne waroo tukki nag dama naan la bul sonn du ma lekk sa xaalis mhm. Mhm. buur foo mën a dem doo ko am wallaahi bul sonn du ma lekk sa xaalis foo mën a dem teroo ma la nga dem fenn waaye man mii xam naa ne su ma la ñaanalee damay lekk ak waaye yow doo koy am ay kayit ci àdduna macha allah loolu di li ma wax sànq rek sama njëlbeen. Mm. ku nangoo sonn ci ñaan yàlla la mm. jox doomu aadama yi la mm. waaye sëñ bi mbiru wujj moom xam naa ne su ko tuddee moom jigéen ñi ñooy moom vidéo bi ndax ku xam ne ni jigéen ñi mënuñu wujj waaye nag li ci ëpp ci ñoom li tax léeg-léeg bëgguñu wujj moo wujj day ñëw fekk la nga mm-hmm. nekk sa jëkkër mm-hmm. màggandoog moom mm-hmm. jurandoog moom ay mbañi rus ñu ñëw nag ñoom bëgg a détourner sa jëkkër féetoog moom tàqale ko ak yow waaw xam nga ndeysaan sunu mbokk jigéen yi buur euh, dañ leen a war a tamit bàyyi xel te di leen ñeewante bu baax su fekkee ne euh, takk nga soxna nekk ak moom ay at yàlla dogal sa kër stable na nga jékki-jékki takkaat beneen indi mu jaxase sa kër jaxasalaat sa famille. Mm-hmm. bari na bari na léegi ne alaakulli xaan damay gis wax gis ñoo xam si ni dañ may ñaanloo ci lu mel noonu ci ay jigéen. Mm-hmm. mbirum sa jëkkër bañ a takkal takkal la wujj moom loolu lu wér a wér wér loo xam si ni bu ñu ko defee benn fan lañu doon benn fan. <laughs> waaye du takk ñaareel mukk sëñ <laughs> bi nga yow mii nan ngaa tax jigéen ñi rek. xam waaw lii de bay jëru tef la xam nga dugg mhm. li ñuy liggéey li muy ndaw ndaw nii nii xawaatim sa tur ak turu waaj kese laa soxla boo xamee turu gi muy bëgg a takkit dajay gën a gaawaale fii laa koy sox waay waay jaalu takk ñaareel mukk ilaa abat dereti naat lay ànd la ñuy bind tur yi dereti naat bu ma ko sampee bu ma ko xasee samp fuy tooy mhm. yow yaa naa ma sëñ ji léegi waa bëgg naa mu takk ma dem dindi wala yow nga dem dindi ko mais fekk mu nga fa mu nekk. yow yaay condition waaju nu mu la neexee yow yaa koy conditionné nu mu la neexee yow. la ilaha <laughs> bu ñuul la. <laughs> loolu kay xam-xam bu ñuul la eh, sa jëli. Mhm. Eh, yokk awra ñu mhm. bari dañ jàpp ne amul. Mhm. wala xëj na feebaru ngóor a jamono ji bari na lool nag wax dëgg yàlla. Eh, góor ñi fukki góor yooyu jël juróom-ñaar ya moom la ñuy jàmbat. dem na ba sax li leen sëriñ si jox léeg-léeg doomi Viagra yi la ñu jël. dëbb ba mokk boole koog sunguf jox la loolu nag fi ne nii mi ngi gàllankoor ñu baree bari. Mm-hmm. man xam nga sama garab yi nii ñi ma koy jox soo ñu ma leen euh, comme garab boo xam si dem nga ba sunu mbokk yi di ko di ko jël di ko jaayaat nasaraan si. Mm-hmm. ba ci Dubaay dañ koy fii dañ koy jël ay di ko jaayaat naar yi. Mm-hmm. te mboolem Europe lu fa dugg boo yeexee ñaare danañ ko jaaral laboratoire. xam lan moo si nekk lii plante la garab bii nii suñu dëkk boobu ma la wax. ca Fimela waaw fa la ñuy liggéeyee reen yëpp. Mhm. akum xas. maanaam lépp plante la base bi plante la. Mhm. bu la neexoon fi ne nii mën naa koo ubbi man ma jëfandikoo ko. base bi lépp plante la lépp mu la amul lenn lu ciy lor nit. Mhm. te su fekkee ne nit ki dafay gaawa daanu. wala bu sëyee ba pare awraam dafay dellu ba tuuti am na ñoo xam ne hémorroïde mooy delloo seen awra ba mu tuuti. dëgg la te ñaare sax ñi am impuissance sexuelle. dañuy am dañuy am hémorroïde. moo tax ñaari yooyu ñun la ñu taamu ci muy ñaari garab ñaari faj. ñaari jàngoro yooyu. Mm-hmm. moom dong lañuy ñuy faj ci àdduna fajuma jabet fajuma len mboolem looy wax noonu fajuma ay hypertension yooyu sama yoon nekk xaw ma sax ku ku mën naa am dal na ma man te mu xaw ma nu koy faje mm-hmm. waaye ñaar yi nii ku mu dal soo ñëwee ci man ma faj la ba nga wér mooy impuissance wala hémorroïde képp koo xam si nii dangay gaaw a daanu wala boo sëyee ba pare sa awra dafay dellu ba tuuti wala boo daanoo nii pour nga amaat beneen dafay jafe nis ka fe lay àndal wala meew kudd bu ndaw nga koy booleel chaque jour chaque jour moom traitement lay doon. traitement la benn po bi traitement la mais nit ki bu ko jëlee jamono bi mu ko jëlee dana ko satisfaire ba mu xam ne lii ma jël lu baax la. Mm-hmm. ku yokk xam nga buur ko wàññi ko traitement bi jeexee. po bi bala moo jeexee dootoo soxla garab bi boo ko jëloon sept jours boo ko commencé woon jël trois jours ba neexee tegal nga essayé quatrième jour bi ne naa xool ba xam li ma sëñ jaay lu mel. yaay raw abi Mbacke Thiam. moo ba ci hémorroïde interne ak externe. su fekkee ne mm-hmm. mi ngi nii. garab bii mooy garabu hémorroïde bi. Hmm. gis nga seen taf yi bokkul. kii ne nga ma teg naa ci ku mu neex bu ma la ko joxee bu sa hémorroïde wérul loo ma. ñëwal ma ma delloo la ko <laughs> xam nga man dama amee woon hémorroïde. lii moo ma faj ba ma wér. Hmm. te billaahi la si laa ilaaha illa am na ñu may seedaan mën nañoo def ci interview maanaam ñi ma koy jaay ñëpp da naan ma du ma naan sunguf du ma naan te ku ko jël wér. est-ce te lépp moom base plante la. am na koo xam ne si bu ma neexee mën naa tudd turam waaye du koy jar mi ngi itali gi du ko jar mm. yaa ngi dégg fu ne dem na fa daanaka presque lu jege maanaam ñetti at mi ngi faj hémorroïde fu nekk ban demoon ba ne ko dañ koy opéré ko bul ko opéré sama garab bi yee ko faj mosal seet ba xam ma ko li ma la joxoon barke alquranul la alali Serigne Saliou la li moom Serigne Saliou ko def ci moom Serigne Saliou rek la gëm li seexul asra mm-hmm. lu amul sidit lu amul yax dañ koy yokk sidit ak deret maanaam mboolem scientifique yi sax nangu nañ loolu. Mhm. Euh, la preuve da ngay gis nit ku daanu léegi nii tànkam neew yi pourtant foroote lañ koy jox ne ko diw ko ci. boo ko diwee du rees lu reesal mënut a mënut a yokk. ah kay ah, léegi nit ki gis nga pro lee ne produit boobu noonu ne pot bi. Mhm. boobu amul taf bi mi ngi noonu. bii moo koy yokk waaw li ci nekk lu ñuy diw la produit la bu ñuy diw suba ak ngoon dong ngay diw boo commencé woon a diw ñetti fan bu fekkee sa awra dafa tuuti da nga ne ma sëñ ji li nga jox lu mu doon. da koy guddal da koy dijjal da koy rëyal am na ñoo xam ne seen mandiwu tamit dafay oyof mm-hmm. maanaam bu ñu sëy seen mandiwu maanaam dafay oyof trop ba bu yàggee mooy lay indil feebaru am na ñoo xam si ni yàlla nag dogal na waruñoo am doom mm-hmm. mais am na ñoo xam ne mandiwu bu oyof dafay dem ba jural leen ñuy yeex a am doom mm-hmm. waxuma nag ku ko ku ko diwoo da ngay am doom boo ko ñàkkee déedéet dëgg la yokk awra lay def da koy guddal da koy dijjal da koy rëyal su fekkee nag nit ki mandiwam dafa oyof da koy dëgëral day dëgëral mandiwam da koy woyal mais sëñ bi lu tax nga am franc parler bii ci ñaan yàlla ndax nit ñi hmm. léegi dañu bëgg ku leen xëbal est que da nga ci am xaalis. waaw sant yàlla xam nga si Abdou Khadir sama turandoo dafay wax ne. maanaam nit ki euh, boo waxee ci ay kàcc. Hmm. ba am junne. nee na boo fa dëgg mën nga am fukki junne. dëgg la ndax yàlla dafa bëgg maanaam nit koo xam si ne dafay moom sëñ Abdou Khadir dégg nga li mu daan wax istiqaama. laa yoom zaalika kitaab laa rayba fiihi hudan hudan bu yàlla yemoon te nit ñi utiliser ko. kaamil bi yëpp maanaam mën naa yem foofu tan lil muttaqin waaw maanaam ak njub gis nga njub mu amul lu mun tamay doomu aadama mm-hmm. jub mooy lépp gis nga boo jubee nit ñi dana naan kii fu muy jële wërsëg li mu am ko ko may fekk maam njub moo la ko may dëgg la njub du xañ kenn dara mm-hmm. jub ak wax dëgg du billaahi du xañ kenn dara waaye dëgg la waaw mais ay kàcc nag lu la may tey suñu bilaat nee na bis bi nga ko defee ñetti fan lay am mm-hmm. bis bi nga ko defee bis bi nga ko xamee bis bi la bàyyee waaw waaw sakkanul de waaw kon nag waxal dëgg. lu mu mën a doon rek wax ci dëgg. la la ci yàlla wërsëgal nga am ko mu lew la. lu ñu lii ma nekk nii fukki at ak nangam ñoo ngi ci bi ñu jógee ci daara ji ba léegi. Mm-hmm. amuñu lenn lu ñuy def fépp dem nañ fa teraanga ju nekk yàlla dénk nañ ko ku ñu war a dimbali ci suñu wërsëg ñu ngi lay dimbali. macha allah sëñ bi lay tàggoo. <laughs> waaw waa dax xiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu jaamu jiwaat yàlla rek te réew mi ñaan yàlla yàlla dolli fi jàmm. Mm-hmm. ñi koy xëccoot kenn ku ci nekk yàlla nga doon loo xam si ni da ngay jariñ askan wi ka doon ñi nga xam si ni tey jii maanaam dañuy gindi te leeral li nga xam si ni moom la askan wi bëgg ñoo ngi koy ñaan yàlla di ñaan Cheikh ba Bachir yàlla yàggal ko fi te mu wër ak mbooleem xolofaaw yi ak mbooleem ñi nga xam si ñooy xalifa généraux yëpp ci barke alquran wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin